waaw salaamaaleykum uh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tey tey jii nag ku gis sun uh, teewaay fii nii si Mbàkke uh, bisu mag moo am bis boo xamante ne Sénégal ñëpp dañ ko doon waaj ay ay ay ay ati at ay fan ay weer tey jii nii la ko yàlla dogal kon nag duñ def lu dul rek maanaam dugg si biir gars yi nga xam ne ñoom ñoo teew parce que gis nañ fi ay ñoo xam ne ay organisation lañ yor si biir ñoo ànd nag télé bi nga xam ne ñëpp a koy bàyyi xel muy 28 pro. kon su ko defee rek euh, dañuy ànd ak sama caméra sama caméraman Seydina Omar dugg si biir jéem a xool gars yi. nga dem nga toog si salle bi noppal bu guddee nga jàng-jàng yi mu xalaatuma ko séeréer yi togg bu léegi ni ñëw naa si jàng nuyu waa baas bi te nuyuwuma leen mën nan maa mere damay dem nuyu ji waa waañ bi jàngkat bi dugg si waañ bi commencé nuyu toggkat yi di nuyu toggkat yi naaf yo mexe taamina jam soog grand boubou bi lonku ci te grand boubou bi lii bi ci macaroni bi. Oscar dafa kaas baax na grand boubou ak ay loxoom lonku cin li mais problème mooy ba cin bi daanoo daal dal ci cin bii cin bii dal ci bii bii dal cin macaroni yëpp ànd daanu. séeréer yi ñuy daw dugg seen kër ñi génne ay peel ñi génne ay rato. ñi génne ay kudu luus topp jàngkat bi naan ko di jàng jàng yi di fay soos na jàng jàng yi di fay soos léegi kii mooy ñëw benn woykat boo xamante ni. damala damala love my baby man damala damala Thank you. kay doxoon na fi ah doxoon na de doxoon na ay oui. Feera yow jóge fii ba Dakar il se sase wu ne bii da ngay def loolu. làkkal français li ngay làkk français bu ko waxee ci olof ah moom moom 100 francs bu ko yaa moom 100 francs yi. ja joxoon maa njaago ah ah ayoo ndeyam fii allé kaay kaay bi nag. woy bi àndew. léegi moom lan la wax man moo posé question bi. géej 100 francs moo wax si si français nga moo moo wax olof yaa nga wax si olof yow tamit. ñëpp la wax yow moom dof nga moom lu yom laa lay wax. soo ko waxul booy booy maa ñaaw booy bu ma dee fas rek. waay waxal rek peut être foofu bi leew. je veux sortir s'il vous plaît. ka moo wax lan. waxal je veux sortir s'il vous plaît. je veux sortir s'il vous plaît. Ah! Modou Modou. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa euh, waa 28 pro di nuyu sama xarit ba fa nekk Bégaay di nuyu téléspectateurs yi topp site bu mag di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn. waaw mu mel ne euh, si Abdou tey euh, bisu mag bisu boo xam ne sa rakk sa lépp moom moo koy def muy cun bitik nga xam ne boobu la ñu ngi koy waaj ay weer di ko waaj ay fan tey jii la agsi muy le euh, six le six janvier ñu gis la sa teewaay nga xam ne ku ne xam ne ne jot amul waaye ndeysaan mën naa ne bawol su su xewlee rek nga doon nga nga xam ne ne xeeboo kenn barke Serigne Touba léeg-léeg ñu ñu amoon mbégte ak kontaante pour ñëw laaj la maanaam bis bi maanaam bis bi moom euh, sunu bis la ndax olof day wax ne lépp ñëpp lu ne ku ne nga te ci lëmbudul affaire ay aar sax

mais ndeysaan ñoo ñëw mu yaatoon doon grand bu baax <laughs> ku ouvert macha allah ñëw mu yaatoon ñu ba ñu mën a am place macha allah kontaan nañ bu baax a baax a baax ñëw ci bisam bii baax yaay bis bi ñoo ko dundee ak sa diggante ak Thioune Boutique ah, ku ma xam-xam ma am man ak dañoo yàq man alxuraan avant muy nekk te ah, loolu ku gis tey ni mu mel ak ni mu présenté ak ni ma nit ñi accueillir ànd ak sama délégation nga xam ne Thioune fàttuma barke alxuraan daa nit ku baax doon nit koo xamante ni nit kese la xol bi si Abdou Lahad képp moo tax nga doon non tey maa fi wayoon ngi wal yëngoo tey ma dellu cosaan dellu wax ni xale bu dee door dem xel boole ca yarat tey tey nangoo laaj ñu baax ñu ko jiitoo yi waaw xoolal ma ma laar sama gaa yi man de fonk naa leen way wi yéena ko moome jaaramaay yéena na war naa naanum ñan nag lépp ñëpp kon su ko defee rek ah, dañuy wëlbatiku si euh, euh, Ndiaye Lo Ndiaye Lo yow bala ñu laa tam bëgg nañ saf safale loolu il ngeen xaar ko fii bis bi nu ngeen ko dundee yéen waa Baol ah daam ziar na la baax di ziar site internet 28 pro a ndax fi ne nii foo sànni mbatt tak cun bidig moo xewle cun bidig borom bawal cun bidig borom appel yi cun bidig acteur bawal bi ñun bawal moom lañ am moom lañ safoo boo ba léegi ñooy fa dañoo wax wax ba tubaarkàlla macha allah. li ñu defoon naaj bu ñu ñëwee gis cun tëgg mu fees dell comprendre ngeen. ñu war a xam ne bawol gi yëpp benn le mais am na loo xam ne que rafetul ñu nekk benn ànd nekk benn bawol aar gars yi bàyyi ko xel ne social moo ko tax a jóg social moo tax a jóg bawol aar du leneen moo ko tax a jóg ñiy wax te xamuñu dañu xam ne bawol aar social moo tax a jóg ñun ñëpp benn lañ dañuy booloo nekk benn dara xaju suñu diggante buñ ko si jéem a xajal. xam ngeen bi may jógee Dakar damaa jëlee information yoo xamante ni si Dakar laa ko jëlee ba Colobane jomb Kër Massar ñëw bu fii mm-hmm. ma expliqué ko cuun boutique mu ne ma il nga ñëw ba fii jox ma information yi mm-hmm. bu ngeen paree rek ma jox leen ko pare na ayca jàngeen jëf mbokk yi dégloo di leen Ndiaye mu xëy indilati leen mboolem lu yëgle kaay yi bind tey fi ñu koy tàmbalee mi ngi ci biir journal bi ubbil tëstan yéen a kaay ñu fekk fa benn waajoo xam ne da génn ak benn xale bu jigéen ba dara desul lu dul tàgg waa ji toog ak bi di waxtaan xale bu jigéen bi xamal ni ko ni dañu maa trompé maanaam damaa am doom waa ne ko kon sama diggante ak yow na fi ndax man du ma takk xale bu jigéen bu am doom ba pare xale bu jigéen bi ne ko yéen góor ñi lan moo tax doo leen takk xale bu jigéen commencé zéro bi partout ma ne ko moom yaakaar naa ni soxlawuñu ci dem var loolu ko soxlawuñu ci dem var xanaa soxlawuñu wo ne ah <laughs> man ma dem varte xooli leneen li fa xew ubbil testeur yéen a kaay ñu fekk fa benn paa bu tudd fekkee démb xam tey paa bi mi ngi leeral wax nga xam ne moom la Sénégal yi xewal léegi fan la cosaanoo mu di waxi filfilaale sànneeku def lu ma saf ba muy moom xam naa damay mujjee gaañu ak toj sa mbaari mu naa paa bi nee loolu benn xale la woon bu dëgër bopp xale boo xam ne seen koñ moo fa gën a ës benn jour papa woo ko daan na ko kaay ma yónni la bi ñëw jaar ci kaw muy sukuraat papa ji ñëw tim ko mu daan ne papa ji xam naa damay mujjee gaañu foofu la waxi filfilaale sànneeku def lu ma saf ba muy moom xam naa damay mujjee gaañu jugee ma jugee foofu da dal ci leneen mu di ci wàllum bëggante ndeke da bëggal daal des fois dina dugal ci nit musiba naaru laay ku ko weddi laajal diib borom musiba naaru laay ndax xale bu jigéen bi dafa toog ak faram doon waxtaan ne ko bébé démb mu dama laa géntal aéroport ñu dugal la ci avion bu ñuul nga takk ceinture bu ñuul avion bi dem bay décoller courant coupé xanaa gën naa lëndëm de. dama leen a gisatul fi mu ne xanaa lëndëm na kay de lëndëm na kay lëndëm na kay. rek far bi del paaka ne ko courant ñëw na àggalil gént gi wala ma rey la mbaa nga xar géej gi ma jaar ci dem mais te kumkande mi nga fi waxoon. ma dem xooli ba tey beneen journal bu fay def ci biir bi mu ni Mbène Sarr Mbène Sarr dëkk ba la jógee ñëw fi am fi ñaari at tàmbalee changé di làkk français di wan naa bu ko ko doxaan mu bañ am benn waay bu gis bu tudd Maxa Maxa doxaan na Mbène Sarr 5 ans 5 mois 5 heures de temps 5 minutes 5 secondes xanaa Mbène Sarr moo 5 ba 5 ci yaramam ba bëggul dara lu ko tax si noonu mu daal di accepter Maxa ñoom ñaar ñu tàmbalee génn ba benn jour Maxa daan ne ko bébé tey nekk fii day tey sama xel maxan ne ko kon ñu ànd dem réere ci bari tiitaram xalaat ba ci yàgg maxan ne ko bébé maxan ko waa ko du ñu dem kenkaa yére ba ma ne ko foofu <laughs> kenkaa yére kenkaa yére kenkaa yére dadi ah, ah? yére bi ah man de xanaa ma ne ko ngeen fa demee xanaa ay ponto ki martu ngeen fay commandé ay ponto ki martu ma ne ko xanaa bu ngeen fa demee ay pont ak i ngeen fay commandé journal bi ma nga xam ne ñu ci bari leen bal bi maanaam ñu torompe leen li ko waral mooy foo ba xale yi daan foo démb xale yi waaye xale yi tey seen foo yëpp mooy pasiba su guddee ñi foroote ko li journal bi di laaj mooy lan mooy pasiba ba war a mën a tàngal yaram bañ war koo mën a foroote guddi loolu nag bàyyi naa leen yéen waa Mbacké du ma ci commentaire bàyyi naa la ak commentaire. déedéet déedéet xale bu jigéen bu doom indi naan bul bul saaj waa ji bàyyi lañ bañ wax ba pare waa ji taxaw ci buntu bi sol jàllaabeem daal di tëmbal photo boobu moo nekk ci xel wu njëkk yéen a gars yi waa ji di leen tontu naan bu mu tooñ bu mu tontu bu fi tontu ñu koy ñuus bu mu tooñ bu mu tontu bu fi tontu ñu koy ñuus. ayca merci beaucoup kon daal di yëg merci beaucoup Dady Ndiaye. jël leen seen mbir rek di ko def ay nettali. et eh, boy séeréer. et eh, boy séeréer. jógee dëkk boo ñëw sunu koñ dafa booy séeréer wàccaayu màggal Touba ku xam na ni muy demee safar gi Dakar dañ koy dunde tubaar fa kàlla masàllaa booy séeréer sax bu ñëwee dinaan caayin sama gars yi dañuy waxtaan ci màggal gi ñi naan sama dal dañuy rey 10 nag ñi naan sama dal dañuy rey 15 ñi sama dal dañuy rey 5 ñi naan sama dal kanet yi soos yi dañuy gas ay kàmb dugg fa dugal booy séeréer dégg loolu tubar fa kàlla macha allah di dajale ba am 2500 ne moom ren moom incha allah dina màggali. e bañ ne ginnaaw suba la màggal Touba. booy séeréer 7 heures du matin la taxaw buntu Pikine. oto bu mu esobee. upp ko mu ne ko Touba 5000 Touba 4000 Touba 5000 te 2500 la yor. 7 heures ba 15 heures booy séeréer heure bu uppee oto. loolu lay dégg Touba 4000 Touba 5000 boo séeree taxaw de lii nag mooy sëñ Bamba woowu ma de wax dëgg fa yàlla lii nag mooy duma magal yi 19h30 benn 4x4 bu ñuul séeree ci tàkkam wàcc vitre yi boo séeree nuyoowul ne ko dimbale ma ngir yàlla nga yóbbu ma ci màggal gi nga liggéeyal sëñ Bamba ma liggéeyal sëñ Bamba nga lekk ci soos yi ma lekk ci soos yi ñuy ñibbisi waa ji ne ko oto bi dafa fees mais 100000 francs ngi nii def ko ci enveloppe pass si nga dem màggal yi kon yor na 100000 ak 2500. 22h30 wàññi pass yi. benn Ndiaga Ndiaye moo ko njëkk a romb ne ko Touba 3000 mu ne oto bu kenn dugul laay dugg man ak moom ba Touba ma lekk ci soos yi ñibbisi. booy séeréer di dox bu minicar romb ko gën a wàcc paas bi Touba 2500 mu ne xanaa ñii li ma wax dégg ñu ko oto bu kenn duggul man ak moom ma lekk ci soos yi ñëpp si. booy séeréer mooy dox ba puut. benn njëmbat romb ko naan ko Touba 1000 mu ne xanaa mooy daw xeeñ ba fa dugg ci caayanaar nag. dinaa dugg fii agressé rek faq man yi agressé ma yóbbu li ma yor déedéet. booy séeréer mooy dox ba xombal. benn oto bu ndaw moo ko romb yab ñaari nit wàcc vitre ne ko Touba 4000 mu jër ne ko dem leen da ngeen a fees booy séeréer ni taxawee xombal gëmatul ne yor na 100000 francs mu ne dëkk bi wóorul kii tax damay nax fii laay dox ba Touba du ko tey xaaral ma xool ba xam dëgg la ni muy xoolee enveloppe bi ay ceeli yu def convoi ñëw këf enveloppe bi ñëw ak moom fii biir Touba booy séeréer fara toog ba moom ñetti fan bañ màggal ba pare sonn na xiif mar tilim màggaliwul ni mu wéeroo ci xay gi nii benn oto bu jóge tuubaa moo seere ci tàkkam wàcc vitre yi eh, ñetti nit wàcc ci kenn ki naan ko màggal Touba gi neex na de keneen ki naan ko sama sac bi ay canette la def ba fees ki ci des naan ko li ngeen di wax jaaxaloo ma mais xam nga lu ma yéem waa cëli yi moom ah yi doon yéem ci jumaa ji fan lañ tugee boo séeréer na përët ne ko ku baax na ngeen def bàyyi nañ ci jàmm waa cëli xombal yi xamoo fuñ daloon tubaarkàlla macha allah Moustapha Diop bële passé danga maa leboon bee jot a fayoo tey nag danga ko fay ah sa sa mbaxal gii nu teg fii ah wax dëgg yàlla danga ko war a fay ndax bee jooy yi ah ku ko masa a jaay ku ne falu nga doon ministre romb nga maire ñëw doon ministre kon nag dama bëgg jóoba juba dañ ne woon senegal njaay nit njaay doomi aadama njaay boo demee marché ba sax njaay lañ fay jaay waaye fi mu toll sa jóob kii tax na nu dindi mboolem njaayeen

jooy. papa lan laa jooy. waaw naka la waaw. ma jooy kenn moo tax man it may jooy. papa xamul may jooy. dama koo xam. ku ku ku la dóor. lan laa jooy. Ah. kon yow sa jooy yu métti yi yëpp rek xamoo looy jooy. lu may jooy de damaa toogul yàgg dong may jooy. Ibra Ibra Ibra man duma sa morom dégg nga ni ma ko man sa baay laa. Ibra xool nga ba sol sa dàllu baay mu jot la nga xeeb ko dugg ci sa sécurité baay tax nga bëgg maa dëggate dégg nga Ibra man du ma sa morom yabaate nga trop waay tëggal kon ok dëgg dëgg dëgg yëpp am na lu ma bëgg nga xam. waaye yow nag ak daara ja laa xam ni da nga fa dem. daara fi la waroon doon yu baax. daara ja fekk. danaa la yóbbu daara ja ndax sa melokaan wii du. barke yàlla barke xol. billaahi wallaahi man man damaa demu daara ma. maa demu daara. daara ja kii bari saa ñaar. dama dama la baaxul dama la micro paay. lu leer la la. mais man ba ma naree dem daara. daara ja moom da nga ko def pour yaakaar xoolal man moom déw may daal xoolal su ma naree dem daara maa riiti riiti dama taa ah, man sa bay la moo tax soo naree dem daara ja maa riit su fekkee doo dem daara ja kelemati kelemati lañ jamaalu jamaalu jamaalu lañ lan la man dama dul sa morom dégg nga lu wax man du ma sa morom dégg nga te lii nga jël nii damaa bëgg nga teg ko ci suuf dégg nga man damaa jàngee ci réew mi génnee daaray in i sa yaasin isa barada in ñaa in la ca des ñun ñëpp xam nañ ko waxu. li ak yéen rek nga may mën a euh, tegal. maa demul taala ma. salaamaaleykum. maaleykum ah kay ah, ah kay Sidibé Sidibé nan dafay ci jàmm alhamdulilah ñu ngi lay ziar bu baax alhamdulilah mi ngi sant kay alhamdulilah. barika ah, <laughs> kay nuyu sëñ Ibra kay nuyu sëñ. ana sëñ bi. kii tànk mi nag Mbàkke bi xoolal lompoñ bi xool xool xoolal waaw jëli jëli jëli jëli jëli man maa doon ñaaw fi. léegi ah, day ah, xale rek day xale ah day xale rek am solo am solo day xale rek xam ah, nga maam yi day xale rek waaye ki nga. bu ko yàlla defal nag du ma ko def dégg nga man boo ma nuuree rompaay du ma rompaay it du ma du ma nekk rompaay dégg nga yëngu na ngeen def arikal ma ne ku ne xam nga ne xa yaayam ji xaar balaa moo gaañu ma ngi moom waxtaanoon nañ bu noppi te bi ñuy waxtaan sa kanam la dégg waxtaanoon nañ ne yëpp mii bu dee ba nekk mag danaa ko yóbbu daara moom dong nag laa jël si nag yëpp la sëriñ rompaay man ñëw ayib nee naa la yaroo. déedéet. Ah, ah, Sidi man nii li ma la waxoon démb a ah, lay waxaat tey moo ngi nii ay yaram ay yaxam rek laa la laaj kii nag moom benn nit dong ko sonal fii ci àddina mooy soxnay Moustapha Diop moo ko topp sonal ko lu xale bi xam kookoo xamal. da ngay jàpp xale di ko yónni ci mbedd def ko def ko ndong naa di ko yónni rek de dégg naa soxna si moom bu bu xëyee ba toog nii euh, mais ko kaa ah, kii bu yàggee dina fi nekk pour yooyu te loolu baaxul ah, loolu baaxul te te moom moomu soxna yi euh, Moustapha naa ko moom bu bu oytuwul nii nii taalee euh, bul tuf mu naan bul tuf Maodo nee naa ko bu oytuwul góor ñi loo batterie in coow foofu lay mujj dégg yow da daara ñu la jox moom. man doomu daara ja de. Eh, eh, ah ah ma garaawul eh garaawul de ma ne garaawul xam nga ma ne Ibra. Ibra déedéet bul doon bul doon déedéet bul doon bul doon. man demul demul demul demul demul ma ne Ibra garaawul xam nga lu problème man daara ja damaa sonn ndax Moussa Diop xar mu ray indi Moussa Diop. bëy mu rey indi Moustapha Diop kanaar mu rey indi Moustapha Diop nag sa dofe rey indi Moustapha Diop meer waaw mu doon mat ka baax daara ja bu eh, eh. eh, man daara dem daara ja ah damay dem damay dem daara ja fay joxe yàpp fi yàpp fi yàpp bi ah. béjooy la béjooy la yi Moustapha Diop ne ko ah ta ta la ñu def ñaan mo ta daara ja rek waaw bismillah kullu xatin foqatin zaay xatin pandang wal foti kullu xatin ay waay bismillah ah, waaw waaw waaw waaw bismillah acca jàpp mën ngeen a dem jërëjëf waay waaw jërëjëf eh, rond-point bi la am eh, waay demal danaa la demal rek waay yow man fii ba mi jaaxal na ma ah! waay saa ndey am na lu génn ci eh eh Ibra Ibra ak yar. mooy sànni mooy sànni damaa dox damaa dox ba yàgg ma jékki-jékki am lu ma dégg mu naan tos. Ibra. dinaa ko dégg dinaa ko dégg dinaa ko dégg. ma ne bi ñuy xale ba léegi ñu ngi ànd. bi ñuy xale ba léegi ñu ngi ànd. waaw dag maa mos a xamee man may doxatee ay pousse. kon xam nga xale bi li wax du dëgg. non waxul dëgg kay. dëgg dara jël yàlla ci gëm naa la man gëm naa la xam naa ni doo def yooyu. man puus du ma ko def waaye xam naa yooyu demal rek bu ko topp ay yëpp la demal daara ja ay yëpp la demal. oui ma daaray puus moom sax. waaye du du daaray puus demal rek yëpp la demal ah. yëpp la. Ibra. kii Sidibé nga baal. Eh. donc maa mos a xamee accéléré bi muy wax. déedéet sëb tuuti tuuti tuuti bii. Eh. Ibra déglul. Eh, sëb su bees si waa Mbàkke yor nii da nga ciy xéwlu fan yii woon. sama diggante jaar man sëb. sëb li ma koy laal bariwul. sama diggante ak yàlla du ma man sëpp daanaka mën a toog ay fan bu dul ndékki hmm. wala reer wala añ du may daal sëpp eh, waaw ndax ndax lii xale bi xencu nii daa mel ni daa commencé terroriser sama yaram bi fi mu toll léegi baax xam nga nu muy demee eh. comme maanaam jiitu léegi mooy jiitu ma topp ci ginnaaw eh, déet man kay xam nga lu bëgg jiitu ñun ñëpp rek mu àndandoo dem daara ja bu fekkee ni ngelawal dafa dugg ma daal di rek sama diggante ak yàlla sama diggante ak yàlla man li ma loo xam naa ko sama digganteeg yàlla man. man ñebe suma ci añu dama cee reer su ma ci reer dama cee ndékk. léegi budul loolu du ma ko lekk. xam nga nu ñuy def xam nga nu ñuy def. jàngalal ma gone gi ñetti fan ci kër gi fii jarut nga ko yóbbu ca daara ji. na yem ci kër gi nga jàngalal ma ko rek. man garaaw ma maa ngi ñëw. bisimilah comme noonu la demee fii ngay jàngi yow fii ngay jàngi fii. sama yoon nekkul ci yàpp woowu. yëngal suuf. ma ne nga yekk suuf alors bu yàpp wi ñëw ñëwul léegi bismillah eh yeggal suuf yeggal suuf ah. Eh, ma la wax na ko wax. eh loog man. Efachem Efachem. ayca Baasa. usine Baasa. Ah. Eh, fi ñuy jàng. leen إنباث إنباث أثالها أثالها وخال وخال أتجنغل أتجنغل Ibra Ibra man jàng ma yow yaay jàng ah man kat man taxit kay man la jàngal rek إذن باث إذن أثالها أثالها وقال وخال waaw góor jàngal waaw góor jàngal jànguma yow yaa jàng. waaw yaay wax maay jàng. man li ma la wax loolu laa loolu laa bëgg nga wax ko te yem ca. waa kay waxal. idin baasa. idin baasa. asxaala. asxaala. waqaala. waqaala. kay jàngal waa kay jàngal. da ngaa soppi saar wi ci diggante da ngaa soppi saar wi ci diggante mais <laughs> eh, man soo lu ma wax idin baasa de. jot nga man saar wi ma toll woon mooy Aminata Fall Diop xarjata daba lay woogu Issa mooy sa baay woogu kar bigiri bii eh kar bagara baa Serigne dafa génn ah. fecc bu bees eh Serigne Lamine dafa génn fecc bu bees loolu guwaat naa guwaa guwaat naa Thioune maa ngi lay remercier man du yow yaa may remercier man maa lay remercier parce que li nga def ni yomb nekk na nee nga mooy sa première activité mu nekk mu am une réussite totale macha allah dañ lay ñaanal suñu borom may la carrière bu mag ci li nga bëgg domaine bi nga nekk suñu borom distingué la si ba nga ciy dem fu nekk di représenter Sénégal fu nekk di représenter le département de Mbacké ci culture yàlla sàmm la. may la si ay ndam yu kawe ak ñi ngi ko àndal yëpp mboolem artistes yi nekk dans le département de et même au niveau national je pense que ñu suñu rôle en tant que acteur politique mooy accompagner les artistes parce que tey France France wax na ko li am fii ñu defee ko fii nii baax na waaye pour valoriser les acteurs politiques je pense que war nañ ko mën a gën a war na gën a mën a baax parce que tey doon na baax acteur politique acteur culturel yi am une salle de spec de spectacle foo xam te ni fa ñuy produire war nañu am euh, les acteurs culturels ay formation yoo xamante ni bii tey dina tax ñu valoriser seen art war na ñu am mutuelle de santé parce que domaine yu bëri boo demee tey lutteur ku ci dem ba egg yenn à situation des parce que amuñu encadrement. damay wax nag ne maa ngi nuyu ñëpp nag di leen siyaar ndax dagg ngeen seen nelaw ne si jëmm ji waaye nag damay nuyu baax yaay mais moom te maa ngi nuyu baax di ko siyaar di wax ne ah sëñ laat Lahad nag dafa am wax ju am solo ju ma xool ndax sëñ Abdou Lahad woon sama waaw góor gi tuuti na lool waaye du ma ko wax ku ma deful dara monsieur le maire bi yàlla dogalee ma taxawal bis bi bi ma ko ko waxee lim njëkk a def mooy. cuun ma ne ko Mbàkke mun ma yow doomi Bawol nga cuun ma ne ko Mbàkke mun ma duñ la seetaan ngay dem di ko tuddee ñeneen ñoo xamante nii dëkkuñu Mbàkke cuun ma ne ko Mbàkke mu ne ma artiste xam naa ko xam naa ay problème am cuun ma ne ko waaw mu ne ma bis bi maa la yoreel añ maa la yoreel reer maa lay aal kër fu artiste dal barki sëñ Bamba ah. waaw nga xamante ni loolu dafa doon lu rëy barki Seydina Mohamed tey bi ma ñëwee Cheikh Abdou ngi dama bàyyi ma fenn bi ñu ubbee ndabul añ bi ma jox gars yi dañoo tiit ndax ndawal gi ci ne am xarum lëm barke sëriñ tubaa ba pare boole ci ay bitéelu boisson yu bari jox ma boole ci ay sase ndaw jox ma te fa artisé daal ba léegi nii vacances yooyu jeexagul barke Alxuraan kon nag Moustapha Diop man de dama lay ñaanal ci barke Serigne Saliou bi nga xamante ni moo ñu yor ci barke Serigne Saliou bi nga xamante ni ñun gone yëpp moom la ñu xam ñu ngi lay ñaanal ci barke Serigne Touba. lii nga xamante ni moom nga bëgg a jël muy mbàkke nga jël ko ndax sa soxna si kat ñu benn yoon ndax sànq ci kër gi lañ ñëw lu leen lañ fa def te taxul waxuñu dara waaw kon moom tëddee na nday ndayu Cheikh di wax nag ne comme ni mu ko waxee rek lañ koy waxee waa daa ah, mbàkke lim soxla bari na ndax ñun ay artistes lañ tey duñ sañoon am foo xamante ne duñ ñëwee fa la ñuy woote def ko entrée wala leneen li mais amuñu ko moo tax tey ñiim ñëw fii di ko fa defee te xam nañ ne fii mbooloo bi xëjuñu fii te fii lañ ko defee kon Moustapha ñu ngi lay ñaanal baax di wax nag ne artistes yëpp kontaan nañ ci yow ci li nga def teraanga ji nga xamante ni moom nga ma defal waaw.